سما ديكلاراسيون بمانك جميتي خليف جنروي اك فواي ريليجي اك كريفتيفو اد اك اليلوكو بنيوتي شاك ديليغي دي كارتيه اك شاك امام اك مأموم بشاك اه شيف دو فامي nga war a wax ak say soxna nga war a wax ak say njaboot pour ñu faggu aaru ndax olof dañuy wax xoddeeku balaa nga làkkale jaaxle nañu ba kenn mënu ko werante te njaaxle bi yépp li ko waral moo di wopp bi nga xam ni mi ngi elem àddina si yépp commencé ko ci Chine dem Europe dem Amérique dem fépp ci euh, euh, Asie Afrique ak feneen ak feneen mu nekk loo xam ni mën na jaaxal ni ñiin ndax presque ñeenti téeméeri at yi passé chaque euh, cent ans boo tegoo chiffre vingt yi bu ci tegu rek am na wopp ci àddina boo xam ni ja ëlëm na àddina yëpp kon bu ñëwaatee itam muy ñeentali yoon yuy tegle warul jaaxal jaami yàlla yi waaye ak lu ci munta doon feebar bi jaamu yàlla la nun ay jaamu yàlla lañu amuñu fu ñu làqatu fudul sunu borom subhanahu wa taala islam dafa prévoir chaque lettre humaine ak moromam dafa war a am distance boo xam ne moo war a nekk sa diggante ak moom bu wopp amee ak bu wopp amul kon mesure yooyu yëpp bi ci bi ci des muy nun way gëm ya moo xam catholique moo xam juif moo xam musulman dañu jàpp ni ñaan mooy saafara doomu aadama ci lépp loo xam ni jaaxle na ko gis ngeen ni situation bi egg na ci wàllu diine ba kaaba mu vide ba kenn dematu fa kenn defatu fa dara waaye barke démb ak barkaati démb ñu ngi wone ay photo ay picc yu koy wër ti katawaaf te bu bu dul loolu milliers wu malaayika yoo xam ni depuis bi àdduna sosu ba àdduna di jeex seeni service mooy chaque jour nangami milliers malaayika dañoo tawaaf kaaba bi loolu moom du fi te buñ ko bàyyee ak chef d'état yi wala gouvernement yi walla hôpitaux yi wala euh, docteurs yi ñoom kenn ñu wit ci ñoom euh, sunu njaboot la ñuy toppatoo kon nun noo leen war a jiitu ci lu ni mel pour que ñoom li ñu bëgg ci askan bi ak li ñu seen mënin ci askan bi mu mën a antu bu baax te su ma ni askan bi waxuma Sénégal kese waxuma sous région bi mais deme ni village planétaire bi yëpp. fondation Cheikh na Cheikh Saad Bou mi nga xam ni maay président fondateur ak conférence islamique internationale de la tariqa xaadiriya ak tariqa saadiya al qaadiriya bi ñu dëppee maam Cheikh na Cheikh Saad Bou lii mooy seen xalaat lii la ñu d'accord def ko ak démembrement yi ci aju yëpp fii ba Europe fédération socioculturelle cadre en Europe waxtaan nañu ñu jokkoo ak ñun ñu dellu leen kàddu gi ñu aj bépp activité muy tournée Europe bi muy gàmmu bi ñu daan def Cergy-Pontoise naka noonu gàmm bi léegi bi ngeen nekk excès ba pare ñu ngi doon woote pour xam lan lañu war a def euh, ñu xamal leen ni mbo sous activité sous régionale bi yëpp te aju ci démembrement fondation Cheikh na Cheikh Saad bu aju nañ ko ba nouvel ordre ànd nañu ci lépp loo xam ni état yi ak kilifa yi ñaan nañ ko sakku nañ ko ci diine gi ak aada bi dénk jaami yàlla yi ñu gën a sellal seeni xol ak seeni yéena gën a jéggalu sunu brom gën a jéggalu sunu boroom waaye gën a jéggalu sunu moroom yàlla dellu wopp bi ak feebar bi يلا ما ياتنو آفية بلب لو خمني نيكن كوتشي والله جاقن كوتشي والله متين يلا انديوات رامبلاسكو تي اي مبكت اكونتانت اكبر بودم تشينيب